fu mu ni nii ñun fu mu nekk suñu yaram dafa tànga mhm. tànga indi sens ne mhm. dañ xam ne ëllëg da ngeen yaakante gis non lii war a am ëllëg moom ndaxte junoo gis ya you know suñu président mm. jógee ko gis weddi bokk am telling you te xam nga ne GRTS ñoo ko wone exactement kon nag jaajëfal leen ma GRTS ndi caméra yi foog ñu nekk foofu Mahmoud ak groupam bi yëpp waaw ah, waaw ëllëg moom mm. soo ñëwee seen seen bopp sax di ngeen xam ne li li ngeen war a cover dafa bëri ah, loolu moom man maa leen ko promise ndaxte xam nga ñi am susuñ gannaaw ay liggéeykat lañ boo soo amee you know ay député yu mel ni ñoom you know honorable Sidi Ndiaye ñoom Babou Gueye Sonko Pape Malick yaa ngi am national youth mobiliser Pierre Minté mhm. you know ay ndaw you know national mobiliser suma boos Yankuba Koli ñëpp a ngi pere ñoom Bakso mhm. you know administrative secretary tout yu wan ñëpp everybody ñu onasanga ñu ngi si ground pour make sure ne ëllëg luñ bugg a rek dafa am te liñ bugg a mooy génn si te uur nañu uur yàlla ne ëllëg billaahi walaay GRTS di ngeen génne di génn seen bopp sax foog naa ne. Mm. loolu dafa nekk one one week waaw dafa nekk one week programme. waaw ah, ne da ngaa génne di génne di génne rek. ñun loolu nga xam ne mooy Ousmane Gueye ah, léegi su ko defee ma ma continuer permité ah, su ko defee ñu am kii nga xam ne mooy Babou honorable Babou Gueye Sonko ak honorable Pa Malick Cissé. national uh, youth mobiliser aus wax na fi lu am solo mu ne ëllëg GRTS dinañ gis nit be daw te xam nga ñu yàgg nañ di gis nit waaye xam naa ne ëllëg moom yaakamti nañoo gis suñu xarit parce que président Jammeh mooy xariti ñëpp ah? lan ngaa wax jigéen ñi parce que xam nga jigéen ñi tey ma maa leen fi toogal père yaa ngi wane xale yi góor yi yeeg waaye gis nga jigéen ñi ah, ñoom la yaaya jaame jël def fii ah xoolal fii fii caméra woon ma fii fii fii la yaaya <laughs> président jaame def jigéen ñi kon nag xamuma naka naka ngeen naa def élève ba nga xam ne góor ñee fa ëpp jigéen ñi père waaw déedéet gis nga fi mu nekk nii ramatulaay mm, mm. dafa yomba suñ ne ndaw ñi ah. góor ak jigéen ñi lañ wax. ah ok baax na bon bokka day. bon bokka day doo si mun a génnee jigéen ñi trop aw. <laughs> bon bokka day. waaye dina la asoo leena. Mm. ne comme ni nga ko waxee. Mm-hmm. ne ladies yi. waaw mooy jànqañ yi. Mm-hmm. am soone ñoom ñooy ëpp xale yu góor yi. because of comme nuñ ko dee waxee rek mm-hmm. jigéen ñi saa su nekk ñoo dee gën a commit góor ñi. so loolu ci wàllu mag ñi am na. te am na tam ci wàllu ndaw ñi Pa Malick mu ngi maa waaw moo dafa waaru rek. <laughs> ak ak xaftaanam bu neex. bi. <laughs> Uh-huh. waaw xale yu jigéen yi comme ni ma ko waxee rek they are so committed mm-hmm. so you will have them tomorrow mm-hmm. xam naa nañ génn si niñ war a génnee mm-hmm. waaye li xew mooy ñun Gambia fi mu nekk nii Ramatulaay dañ la bëgg a xamal ne la ñun ndaw ñi fi mu nekk nii bennoo bi nekk suñ diggante ak gisatuñ dara du président Jammeh ak réew mi te compromise suñ ko ak dara te amatu dara loo xam ne nii mu ngi si kaw suuf naa ndogali yàlla loo xam ne ñun dinañu mun a xoxotal wala nga ceeñ ñun suñ perception wala ñun suñ belief si suñ leader Lulu amut we are unshakable mm-hmm. we can move a mountain the mm-hmm. way that we are moving mm-hmm. and we want to prove to the entire world mm. that ne the Gambia mm. is a different place right now under the leadership of President Jammeh loolu di nga ko gis ëllëg dinañ ko we are going to make history tomorrow. inshallah and these things will continue yàlla. waaw waaw to posterity. yàlla ñu koy yàlla may inshallah honorable Babou dama bëggoon ñu wax waxtaan bi neex na lool su doon suma sago dañoo continuer rek waaye xam naa ne time bi du yàgg mu jeex waaye dama bëgg rek ñu wax ko si soose su mbokki soose yi tamit ñu xam lan moo ñu fi teg naka lañ bëggee naka ngeen buggee gars yi génn ak lan ngeen ah, yaakaar ne nit ñi ne leen taxawlu ëllëg inshallah ah, pour ah, ñëw président Jammeh bi. Ah, rahmatullahi a baraka ñin kaca ñin contano wartantol bulu baake bawo ni ye suti kendo suta tamata ila alpha tamata e wati ke banta bina kan tendigol be ka korontolayana mune wono alpha la beteya woto président jabe mu ñaton ka kendo le ti alpha kendo le na tata fa e wati ke banta ntol be ay lo bakele bawo ye nate molol dum atata mune fanala abota janna tata america banko kan kata e um, united nations summit laje ala dunya fango komi nga fanyo nyame wolungo ani mola dunya mamulu fente fo ala kalanke ya ala kende ya ning ala fansoto ala fankano ala banko kano ana afrika ya kano mm -hmm. cnn kabri babondila ya zoomle ya ke president mun na man siade mm -hmm. waya itana ko ate unit tabake president kono le dum ay kuma kan mum fo je nyin wularo wala ramatu lay mo gambien oti mo africain oti ni la bi ka sinole mhm. because yalla ko gambe nyato ka kendo le soto africa nyato ko kendo bi jene mum bu ko president jammi ni wo tara binakan fonninkeɓe dawodan tolla ñantola nyunti ntolle ngam fan sun ko mfale kananan oto al nga funti ga ta ga bendugo gaytani duniya mol bela gambia jang kabin bañun fo koyna bebe president président jammele gambia jang mhm. mandula bar jang ñim banko kan mhm molɓe président jammele dong ɗum komin nyamin ñamin doron fondinkel walen kake banque la probléme ode bantul jang fondinkelle folo follow président jamel kan ko tambi mo beela mbe dia mo mun na jang kabo west kaji kem kmc kada banjun fondinke ke dawoɗa bibe payan kañum funtol mum beke me telephone le receive kan al nan kam en lafta katalla airport oto ka président jamel batu je oto kanoɗan dawolla mm-hmm. oto mbafla mo be ko mo be dawoɗa to KMC particularly coming diamale afunya Lord Mayo abekato muna ngalonne bakari a ntolna infundi ke kafwa teleben koma ala kata kuo na ala wakilo kuo kono kabrin somanda be sirin biroto kaje ko fundin ke a fengo fenna pour kaje ko bentu nduro sonya ay eh, biro ba to podo kan oto sa fon min Lord Mayo ni bakari jete ko ila kata ko be bari fundin ke be dawoda route line bi kamusol to koma mo mo man tamano kata airport ɗum ɓe moɓe la dukari ye funti silo kam komin dalta kake a talin kabo abuko lamin banjulun ndin lamin abuko faji kunda lati kunda talin ndin ibo town new jo suwan old jo suwan kanaki banjulla sera kunda central mbaflo tele ɓe dawre tole nana mano kan ñin birkama sila ba kan sera kunda central kol ɓe fintilana wol musol fana ajinde jata tijam bare ala no ala molɓi janne molɓe buko ajimbere ñol ami jata wol an odas mm -hmm. moɓe ɗawoɗa mba fula musol beye koye fana e finti ni mu man tamono ka président ɗan nan fo banjun je lo silol kan bawo soma lafta ka kuleytani duniya molla mu yalon ko ñontagolom tol président o mum taleti ɗum ga kanule ɗum a télé folo hen tol kanu bawo nga fanya te ya juso ile la mobe kundi je oto mobe fana wakili mbenga bula noma nyato ka kendo bole nyam nsada nyam fulo bawo Pape Malick benn bi waaw ah dafa mel ni honorable Pape Malick dafa yàkkamti maaj bi ba nga xam ne fu ne mu ngi yee baaraamoo bi sa baabu pour nga noppi waaye nag Pape Malick xam naa ne yàkkamti nga wax loo bëgg a wax gaay parce que yuut si fu mu nekk nii comme ni ko gars yi waxee ñu ne ñu ngi receive call si right bi si left bi kaa jël si ñu dañ bugg a dem fanaani airport xam naa ne yow moom di nga dem fanaani airport yow waaye yooyu dinañ la toppa parce que yu ñuul ku nga sol <laughs> ah <laughs> soo léegi dama bugg nga wax rek ah naka nga buggee booy si <coughs> père honorable Ba honorable Sidi ak mm. a wax rek dafa mel ni yow da ngaa bayat waaw ñoom béy nañ tool ba pare de xanaa yow nga witta rek fu mu ne ñoom den ah, <laughs> faara faara la rek waaw nga euh, ñun mm. ñun den sant yàlla lu sax ma ne ñun den sant yàlla mm. ñun den am loo xam ne kenn amut ko parce que suñ président bi foog naa Afrique yëpp su amé président yu nga xamné ni ñoko gëna ko ya ci ngor mhm. bari wut waye tam waaye itam wax ni si ndaw si ndaw yi la bok man duma ma dee gis président jamé comme président yi gambé dé dama ko dee gisee comme président yi afrika ndég toujours suy wax sax ci mbiri Gambie mhm. mbiri afrika dina ko ci ñambassalé mhm. koku dafa melni dafa gis daram bi nga man lan moom a dee gën a métti mooy ñun ñu nga xam ne nii ñun doomi réew mi leen nekk bitim réew mënuñoo ñëw mënuñoo yónnee di wax lu nga xam ne nii xamuñ ko fuñ ko wéer ñàkk a xam dong leen ko wéer mhm. ndi ku xam Gambie nu moo doxee ci jamono jii mhm. ak ku xam président Jammeh ak ah, ku fekkoon Gambie démb ak Gambie tey billahi wallahi ta olof Njaay mu ne ah, ah, weddi gis bokkuti et puis ñu nga xam ne gisuñ sax ñu ngi fiil ne développement am na sooy dox si kaw tali bi sax gisuloo sax di nga xam ne nekkuloo di dox si poto poto su ma ay naataango yu nga xam ne kenn xamul sax kañ leen génn réew mi nga war a toog nga bàyyi say waajur Gambia bàyyi sa mbokk fii Gambia nga war a trangal Gambia war a trangal say waajur toog fële bitim réew di saaga sa réew di saaga sa waay réew di saaga say kilifaa réew billaay am na lu des si yow lii war nañ koo seetaat trop nit war naa damoo fu mu juddoo loolu sax diina moo ko wax bugga sa réew loolu bugga sa bopp la bañ sa réew ñàkk a xam sa bopp la te gis nga nag banta lu mu yàgg-yàgg si ndox du soppali